maa ngi ñëw mel ni ku lay attaqué. yow am nga saa sa ku laa dugal. barke yàlla. <laughs> diggante keroog salle de musculation laa ko fekk li man sax dafa maa dépassé. ah mais loolu ndigal la war a entraîné na xale la. <laughs> waaw mooy yoon. xale la am wala ndigal xale la. ndigal waaye xale am de. non da ngaa jàkkaarloo moom keroog arène nationale na ko doo tus te bu ma nga xam ne doo tus te man dégg naa ci nit mu ne ma Langsar ñi gër ci nga bokk. man damay jàng rek du man lu ma dara a cuune ci laa bokk. man damay maa ngi si ginnaaw gaay rek. Ah. waaw. ban ban eh, ban am yéen non suñu combat bi dafa xaw ay problème sax ndax Sambay mu ngi nii dem dem régulariser Papa Boy Djiné ak Jacob Balde. instant yii baal ñu toog ñu ngi nii ci loxoy yàlla rek xamaguñ sax fu taxaw. Samb moo dëgg combat man du ma nangu loolu. ndigal nanguwu ko te man tamit nanguwuma ko. waaw ñun am na ay valeur yoo xam ne boo ko perte jaratul sax ngay bëre. Jacob Balde champion la sama rakk la quoi waruma ko bëre def social du yoon. bañ li nga war a bañ dara nekk si mais loolu du ma ko nangu vraiment. bañ li nga war a bañ dara nekk. waaw te li nga a bañ. ndax ñoom suñu journée lañ ñu fekk ñun ñoo war a bëre grand combat bi dans les normes. waaw mais bu demee noonu ñun du ñu bañ a ko wax di bëri sa staff woo nañ man du ma wax moom dara sama Maxime Bergan laay waxal rek. moom nga aménagé. waaw waxtaan nañ. lu mu wax waaw nee na ma instant yi moom mooy loolu. waaw mu ngi ne mu defal la ci ay leeral. Ah, combat bi warul ah, mu defal la ci ay leeral. jërëjëf